asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 13 mai 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu làmb nag tey fa la muy xëy doore mu mel ni ki nag ginnaaw baat moom wala wax boo ko waxee daal la ngay wax xam ko waaye itam nag xaaral lañ lay tontu bër ki démb Moussa Yacine la ñu gisoon ci sunu làmb yëglekaay bi ne Moussa Yacine daal xam xamle woon ne daal diggante mag Modou Lo day mbirum koppar moom ci tëggal bi mu koy tëggal dese na caa gis boppam mu mel ni ki nag tey biram ñi ma nga xam ne mooy mënaat sa Modou Lo di pareem xëy na di tontu moom daal am na lu ko naqari mbiram moom wax ji naqari na ko ba yegg ca lool lool lool moo tax sax jàpp na ne day lii kii wax day du lu mu Lo mérité moom daal ne na Moussa Yacine da koo bett bu baax a baax ndax nee na chaque combat day dañuy génne montam moom jox ko ko te loolu lu leer nañ la biram a ko wax ne na man biram mii tamit li nga xam ne moom laay am ci écrit bi pourcentage wala ci combat Modou Lo dama koy jël delloowaat ko ñii nga xam ne ñoo di waa Rock Énergie di écrit Rock Énergie mu mel ni ki daal mbir mooma moom ñu nga ca di ca waxante man la ak du man waaye keneen koo xam ne moom sunu lam ne na est-ce que du moom moo di kii nga xam ne moo di booy Niang moo tax mu ne Lac de Guiers am na client boo xam ne xamul fu mu koy wàcce wala fu mu koy yekkale ndax na Boy Niang 2 la boo xam ne day ko takk weesu na ko ambition itam am na ko xarañ ga énergie ba moom dafa dem sax ba ëpp aw yoon sunu làmbay wax de waaye tamit force moom ku ko am la beneen ba ci des tamit xale la boo xam ne ni bu ndaw a ndaw la ndaw la sunu làmb xëy tey daal di wax loo ci ki nga xam ne ni moo di Boy Niang waaye leen loo xam ne tamit gis nañ ko mooy ki nga xam ne nii day moo di ngeer bu sab ngeer moom Franc lay waxal nee na ko jàppal lii ma lay wax yow mënoo maa teree nelaw wala nga may yëngal wala ngay xalaat len ci man bu ko xalaat amul lenn loo xam ne daal dama koy moytu ci yow moom ngeer moo xëy di wax loolu lig Nicolas moom jàpp leen ñëw na ca combat 15 juin mu ngay wax prix billet lig daal nee na li leer ba leer day billet moom buñ ca yeggee 3000 francs lay doon ak 15000 yëglikaay bi nag nee na arène nationale ba doon di nemmeeku daal xam naa na mu fa war a tëgg ak yu mel ni kii noonu sunu làmb xëy tey dinu ko wax keneen koo xam ne moom sunu làmb ñëw na ci moom mooy Basirou Babou waaye moom nag mu ngay wax fi nga xam ne nii sax moo di ca Leewtoo TV Basirou baabu dey nee na waxi Modou Lo daal bu ko ko kenn di wax ndax nag ne neen jëm la joo xam ne day ban tàqali ko ba tey dégguma mu wax ci man lu ñaaw kon aw ma droit di wax ci moom wax joo xam ne day juñ ñaaw la man daal maa ngi ci la ma ne ànd ak dubales ma nga xam ne ak i doomam yàgg nañu maak ñoom Basirou Babou moo xëy di wax loolu keneen koo xam ne nii moom combat la xëy taxawal daal di ñu won combat ba wala suñu lam ne nu combat ba day 7 juillet lay am muy combat xale njaaytin rakki tafaatin ak bébé Birahim ñu ne boobu combat nag jàpp leen sëñ Modou ñaa moo ko tëgg te kale na ko Jordan moom mu nga xëy di wax ak ay adversaire am ñi mu jàpp ne day dañ ko war a jël te li ñu li mu gis mooy sax ñoom dañ koo desee ñime muy paka la Malick Niang ba ca forsa ma nga xam ne day jàpp na ne sax da koo daanoon ne na ñii daal ku ci pare rek man mi nga xam ne maay Jordan pare na ngir fas yéene nag defante ak yow ba mu saf-saf sunu lamb xëy tey dinu wax loolu leneen loo xam ne tii tamit gis nañ ko fi nga xam ne nii mooy ci journal bi nga xam ne moo di léese ko mu mel ni kii nag ki fi nekkoon roi des arènes Yaxya Joob Yékini moom la xëy dalal séq ak moom waxtaan wuy yaatoo yaatu Yékini nag mu ngay indi leeral ci li nga xam ne nii moo ko daloon nee na day boo bëggee dëgg-dëgg nerf yi bu coincé daal waaw wala ay nerf yu coincé day la amoon moom Yaxya Joob Yékini ba mu jàppoon sax colonne vertébrale am maanaam daal lu méttee méttee méttee daloon na ko jàpp na ne daal moom pour sax loolu ñu mën ko opérer opéré daa am loo xam ne dañ koo jël ci yaramam pour man koo greffer fa ca des ngir mën koo opéré waaye daal jàpp na ne moom dund na loo xam ne day metti naa ba yegg lool ca lool daan ba ko Lac de Guiers 2 daan ak Balla itam jàpp na ne day lu ñu mérito la waaw loolu daal moom yax Yaxya Jóob xëy na di ko wax am na ñoo xam ne moom ay problème la ñu am na lu mu leen di wax muy Yékini Junior Malick Niang ne na ñoom day li des mooy dañoo deful sacrifice bi war ngir ñu yegg fi ñu war a yegg ci làmb liggéey dëgg daal dañu koo desee def moom Yaxya Jóob moo xëy di wax loolu Ablaye Njaay itam jël na ca wàllam ne na jàppal day bu la neexee mën ngaa toll ni building waaye nag li wóor ba wóor pour pour nga nekk daal mbër mu ñuy coow il faut nga nangoo rey sa bopp ci côté entraînement Yaxya Jóob moo xëy di wax loolu ñu ne ko waa Yékini nag ba nga làmb ji léegi looy xëy di ca ne mu ne li may xëy lenn la man daal maa ngi ci samay business jàppal njaayum ay giréeg jàppal bàyyi lak yu mel ne ki noonu daal maa nga ci di liggéey ak mbirum mu mel ne ki daal mbirum tabax ak yooyu yax yeneen fi mu nekk nii ni ca loola ca la ne keneen koo xam ne nii moom ah ak kooram neex na na mu demee koor ndax nag suukaras koor sama yóbbaale xaw naa takku mu toll ci un million six cent vingt mille francs ca lambi simple ji la muy booy fay sunu lamb xëy tey wax nu ko waaye leneen loo xam ne tam ca leewtoo point net lanu ko fekk ministre Matar Ba ma yore sport ba Matar Ba day mu ngay xam le ne daal jàpp leen nee na jàppal na leer nañ lamb ji tey wala arène nationale ba daal wàññi tey defee su ko ko ca sarga mosog Moussa Ndoye daal la ko wax ci Leewtoo point net xam le ne ne sax ñi nga xam ne dañ ne dañoo war a yokk miir ba ndax ñiy yéeg miir ba ak yooyu mu ne ki ñëw ngir bëgg dagg biyam seetaan làmb est-ce que moom dina ñëw ngir naan day tëb miir wala mu koy yéeg am na ñooñ nag danne bu nit ñay moom ñu ngay raas déem waaye ndax jooju wax dina neex a weddi ndax man stadium stade Iba Mar Diop maa ci teg samay bët miir ba gudd na ba yegg ca lool te gis naa ñu ko yéeg ngir di sàccu ngir seetaan làmb am na ñoo xam ne daal maanaam yedd munut ci ñoom lu bari wax ci suuf waxi noppi ndax daa am la ñuy gis te buñ ko gisee dañuy fittirlu ni lii la ñuy def bu ñuy ñëw lijjanti wu ñu biyee lijjanti waa nu nu biyee te lu ñu gis muy lang taala ñu dugal def seen poos kon daal li ministre bi wax leer na nañ wàññiwuñu tey suba waxi noppi ci arène nationale ba ministre Matar ba moo wax loolu waaye Talla Ndiaye la nga lu net rafet na ak sa simis ndey Kumba Fall la nga dellu cosaan baax na Aysatu sa robb baax na waaye biram yow itam tey dellu nga cosaan ca diggante ngunjaan ak dëkk ya ko wër waaye yàgg maar la nga def ci kàbb kenn du yow ak say noir fumier maa bëgg ci waa Leewtoo TV waay lii laa xam man suuf Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque semaine rek ànd ak yéen ci seen revue de l'arène ak kan sama mag sama xarit Babacar Babacar nuyu naa lay fay sama rakk sama xarit Serigne Moussa Niang yaay njaga maa ngi lay bëgg bu baax a baax di laaj sa fi kenn noo ko dundee maa neex na Aïcha waaw Babacar weekend bi profité nañ ci noppalu bu baax. ñu ñëw ci li xam ne moom la biram ñi nga wax tey muy euh, kaawu Moussa Yacine ak coow lu fi amoon parce que ñoom nee nañ gisuñu seen bopp ci tëggal Modou Lo ak yu demee noonu moom nag mu leen di xamal ni Modou Lo mérité wul tey ji coow lii nii ñuy jugal ci moom parce que moom si boppam moom mooy jël en charge fayu tëggkat yi suñ su bëree ba pare mu jël xaalis bi yóbbul leen ko te Modou Lo mérité wul coow lii daal. waaw loolu day liñ si mën a wax daal mooy que ni Moussa Yacine defe naa ne ba ñu xamee Modou ba tey tey xam nañ ko ak Moussa Yacine yaa ngi dégg mu koy tëggal ba muy bëree ci maanaam ba mu commencé bëree grand combat ba nii Moussa Yacine sax daan na tëggal même ñoom Yaaram Guèye ñoom Zos ñoo ñëpp daan leen tëggal maanaam mbër mu yàgg waa parcelle la tey nag yàlla dafa def turam ci Modou Lo la génne ndax xëy na fa Modou Lo toll ci làmb moo moo tax lu mel noonu am li ñu leen di wax nag mooy que ni ànd boo gis rek li ci am solo mooy joxante cër suturaalante rafetal ko ànd tamit te yàlla tax Hmm, kuy maanam ku yëngu tamit am nga loo bëgg maanaam di am dara yaa ngi dégg ci la ngay yëngatu parce que bu fekkee da ngay forcer ndënd tëggal sa mbër di nga ci bëgg a gis sa bopp waaye mbër mi itam comme li biram ñu ngi wax moom ne na loolu moom loo mérite wu ko ndax ne na lépp li nga xam moom la war am seen diggante ak moom day am liñ ko war a jox ñu ngi ko koy jox ah loolu nag comme li ñu wax rek ñoom seen biir la man la ma leen di mën a xam daal mooy mot loo nekkul n'importe quelle personne personnalité lay ci réew mi ñu ne muy Sénégal rawatina làmb Biram ñu ngi tamit defe naa mooy li fi ñëpp Moussa Yacine personnalité la ci def parce que wàllum tëgg macha allah mën ñoo bokk teen bi goje day laxasoo nañu xool nu ñuy waxtaane ba làq ci seen ay mbir pour que Sénégal jëm kanam ñu mën a avancer parce que am na loo xam ne pour man ñoom ñëpp ay responsable lañu suñu waxtaane rek war nañ mën trouver terrain entendre nga xam ne nii su ko roogee après bu juddoo njëriñ la lay doon pour ñëpp daal waaw. waaw bu ñu jógee ci ki nga xam ne ni mooy père Birame ñu ngi dañuy dem euh, si Boubacar Niang moom it mu def benn jàngat ci combat bi war a dox diggante kii di Lac de ak euh, Boy Niang bu ñu xamal ni tey jii boo xoolee qualité yi si Boy Niang maanaam énergie bu débordante ba ca Boy Niang macha allah. doole xale bi nekk ci moom xal macha allah bëre beeg yooyu yëpp noonu nee na tey jii euh, kii di la dëgër de am na client bu séeré ci combat bi mu jëm ne waaw Boubacar ñaa ñu koy nuyu di ko ziar Boubacar sama turandoo waa jàngat ba mu def am na solo ah, parce que booy ñaa xale la macha allah bëre itam mën na ko te itam du mësul ñëw si làmb nga ne andul entraînement kon loolu nag su dajee ci xale boo xam ne nii am na ambition u yegg fi mag ñi yegg dugg ci biir mag ñooñ am lan teg mbër bu ñuy wax Lac de Guiers 2 kon li Boubacar Niang wax am na Lac de Guiers am na client sérieux loolu moom ku ko waxul itam ah xëy na da ngaa wax leen waaye loo ci mën a dégg daal client am waaye nag man dinaa leen dinaa ko yaatal yaatal bi mooy lan dinaa wax booy Niang it ne ko am na client sérieux ah parce que li tax mooy loolu nekk ci Boy Niang ci wàllu entraînement ci wàllu bëgg lu muy def loolu daal na Lac de Guiers 2 lamb nag magante da ci am xëy na bu ñu leen xoolee ci at Lac war na mën a mag Boy Niang at ci côté bëri itam xëy na moo ko njëkk a bëri waaye fi mu nekk nii ñoom ñaar ku ci ne ambition yi ñu am pour man ko bokkule ah ambition yi ñu am Lac de Guiers dafa am lu ko daloon daaw ci diggante mag Modou Lo loolu da ko bëgg a dindi ba mu xëy na xale bi la bëgg a jaare pour lijjanti loolu Boy Niang dafa dugg géej waaye ñu ne ko da ngay taxaw mu ne du taxaw dama dama bëgg dem te dafa bëgg a wone nekk ci combat bii moom la mu doon def du lu yomb ci moom mais li ñu jàpp ne lu jafe la day yomb ci moom kon nag mu mel ni combat la boo xam ne daal combat Lac de Guiers de Boy Niang man combat kumpa laa ko tudde ba jour boobu soobee yàlla parce que li tax muy kumpa ñuy bëree la boo liiree seen ay bëree fekk dugguñu ci géew bi ba arbitre soufflé fi mu ne parce que bu doon beneen adversaire la tey ak Boy Niang di mën a teel a orienté combat bi du dox ci kawam waaw xam nga Sa Thiès bi muy bëri ak Boy Niang la mu waxoon la def te ñëpp xam nañu loolu moom lay jéem a def si booba nag bu ko defee da ngay gis ne bu fekkee da ngay jàngat xam ne avantage Boy Niang lay doon mais Lac de waaw Babacar dañuy jógee ci combat boobu dem ci beneen combat muy dox diggante ki nga xam ne mooy Nguer ak Franc Nguer nag. même bu fekkee moo jiitu franc ci làmb am na am mag ko ci tamit mun nañ ko wax ci âge moom nee na combat bi ñu jëm daal dara du ko may ki nga xam ne ni mooy franc incha allah dara du ko ci maye. <laughs> Nguer keroog boo xoolee ndeysaan wax na lu mel noonu bi ma ko dékkee micro waaw ne moom sax même côté mag boobu sax nee na est ce que moom mooy mag moom jàppewut sax loolu boppam ah. pour moom ñoom ñoo maase te effectivement waaw bu fekkee waa ji am na licence moom apte pour di def sport bi ah da koy jàppe rek jeune comme comme ñoom mm-hmm. waaye nag jiitoon am na loo gis rawante am na. ndax bu ñu xoolee ci làmb ngeer jëkk bëre franc ci li ñu xam yaa ngi dégg moom lañ njëkk xam ci làmb ka franc franc itam bi mu ñëwee wane na boppam moo tax tey mu am mérite sax bëre ak ngeer yaa ngi dégg ngeer itam loolu mu wax mooy li am maanaam dànkaafu wane ne kat lii yomb te effectivement man ta yomb adversaire moom pour man soo ko jëlee lu yomb amatu fa dafa fekk ne nag làmb dinañ dem ba benn moment am na noo xam bu ñu am ku muy favoriser xëy na buñ dee xool ci ay faveur mën nañ ko jox franc ndax defet te moom ci li ñu mën a jàpp moo gën nekk jeune sans compter li muy wane ci lit simple bi parce mu ngi compétir tout le temps bu yàggul premier mai la mu def Iba am na lu mu def ren ñaaxar loolu nag boo ko dajalee xëy na loolu mën na ko favoriser waaye nag favori moom mën nga ci dem ci biir favori du vainqueur non du vainqueur favori moom lu ñuy wax la mais vainqueur moom le sursis lay am waaw waaw kon daal nañu yónni yàgg yàlla bàyyi ñu fi ba bis ba jot ñu nuyuwaat promoteur bi tëgg loolu muy Ndiaye production Fallou Ndiaye waaw. waaw Babacar ñuy xaar rek jour ba boobaa lépp dina leer mais dañuy dem si beneen combat boo xam ne kii di Serigne Modou Niang moo ko andi diggante ki nga xam ne mooy Ndiaye Tine ak bébé Ibrahim le 7 juillet la combat bi war a doon incha allah Babacar. waaw loolu combat xale la combat espoir bu neex a neex la sëñ Modou Niang it ñu koy nuyu di ko ziar moom vraiment itam mu ngi promouvoir. jeunes yi ah mu ngi leen di may vraiment ab loxo ñuy jóg di wane seen bopp ndax bébé Birahim ku ne xam ne ne nekkatul saako xamam léegi mu ngi yoof te combat bu mujj dafa daan digganteem ak booy ñàgg njaayiti nit combat bu mujj dafa daan mu nekk rakku tafaatin muy de juillet ah nar a neex ngay gis parce que ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañu waaw ñoom ñaar ay defante kat dëgg lañu. ñu mayante dañuy daje. non daje la def Ndiaye ak bébé moom jàppal ne bu war bi suufle bu génnee seen diggante moom di nga gis xeex di nga gis bëre waaw incha allah parce que loolu la ñuy xaar ci mbëran ah, gis fa xeex gis fa bëre gis journée bu neex ñu dem euh, Babacar jeexal ak li nga xam ne ni moom la nit ñi doon wax booba léegi jëmale ko ci arène nationale bi nañ ko wàññi nañ xoolaat mur yi nañ defaat lii ak lii kii di ministre bi nag moom euh, Babacar génn na wax ci benn wax ju leer nee na wàññi munu cee am defaraat munu cee am ñu mel nii daal noonu lañ ko nar utiliser <laughs> incha allah si kàttanu yàlla munuñ ci defaraat dara dara dara. waaw man Babacar di wax dëgg yàlla su ma wax rek. Hmm, ci côté wax. Euh, ministre bi ñu koy nuyu encore une fois monsieur Matar Ba di nuyu waa ministère am yëpp rawatina sama soppe bu nekk foofu ci ministère ba di Bamba maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, parce que li ñuy jëkk a sax mooy li mu def bërki démba kera ajuma woo Garga Mbossé woo Moussa Ndoye si sest fair play bu ñu def boo xam ne moom bi ñu koy def mu ngi teew mu invité leen ministère remercier leen joxe leen le bon exemple pour que nit ñi def sport yëpp ñu gis ñu ñu maanaam ñu jël ci loolu acte di ko roy muy lu am solo parce que ki la daan nga jóg ñëw félicité ko loolu Moussa Ndoye def ba tax ministre bi rafetlu ko loolu am na solo li mu wax nag ci côté arène bi kani duñu ci wàññi ci liñ koy luyee wala côté mur duñ ci yokk loolu moom mooy kilifa gi moom nag su waxee ay waxam a ah, lañ cay mën a jàpp mooy loola mooy li am parce que moom la ñu dénk sportu réew mi man nag si côté arène bi li ma gis mooy lañ ko defaree maanaam la ko wër même boo ko tëboon dugg ci biir taxul nga dugg ci arène bi ndax sécurité bañ ko sécuriser bañ ko euh, maanaam sécurité bañ ko liggéeyee la ca nag mooy ki nga xam ne moom wax na ko ci ay waxam Aysatu dafa da nga am saw xew am na ñoo xam ne dañuy sol seenu dal ñëw ci xew waw ngir njukkal si la waxal si la lu baax bokk ak yow bés ba yaa ngi dégg mais am na ñoo xam ne nag dañuy ñëw ca bés ba ñoom ngir fu gis fu ay Aysatu denceeb téléphone am wala nangamam ñu rocci ko yóbbu ñooñ mënee su leen a canal lii sëñ dañu ne ci waaw ñu ngi dox di ay nit la ñu yaa ngi dégg du ay gunuur du ñu ay mbelentaan du ñu leneen ay nit la ñu am na ñoo bu ñuy ñëw arène ba dañuy ñëw ngir ñoom yéem a seet fu ñu jaare yéeg dugg ca biir yaa ngi dégg ñooñu mënee su leen a liggéeyal Iba ban miir a ko su ci miir stade yi miir bu gudd gudd la man gis naa ñu ko yéeg di dugg ci biir lool loolu ne su ci dara kon nag loolu li ñuy waxaat daal mooy ñun sama bopp laa koy njëkke wala mu njëkke suñu bopp man ak yow ak Talla ñoo fi toog ak biram male civilisé maanaam la ñu war a jéem a incarné doxe ko joxe xam nga nekk sàmm li ñu moom quoi parce que les patrimoine la nañ ko sàmm yàgg nañ koy jooy arène nationale ba yàlla def mu am nañ ko sàmm bëri ci mu jeex li mu wax ci wàññi bi tamit vraiment loolu wax na ko amuñu luñ ciy teg loolu defe naa ndigal la te kon des koy jëfe may saluer tamit benn promoteur promoteur yëpp laay nuyu mais Luc Nicolaï li mu def bërki tamit am na solo ndax fara wala fara war a tëgge làmbam mu sol dàllam dem fa xooli ko loolu tamit am na solo visite ba wax ay njëgu biyam ak yooyu trois mille ak quinze mille loolu defe naa bokk na ci professionnalisme ah. pour yow boo fay ñëw nga jël matukaay dara bañ la bett xam li ngay dox xam boo ñëwee fooy jaare nooy tege say nit parce que tamit vraiment loolu lu am solo la ay waaw waaw waaw euh, ki nga xam ne tamit moom lañ dénk infrastructure sport yeeg yëpp moom li ngi ñaawlu ne mooy chaise anglaise yi nekk ci mu nekk geste yoo xam ne nag teel na torop ci loo xam ne ni defaguñ ci sax benn saison waaye waxuma sax teel na mais loolu dafa ñaaw sax ñu di ko dégg xam nga ay sièges anglais yu ñu def si stade si arène nationale ak nañ ko liggéey rafetaay ba mu rafet ku dugg ci arène yow amoo benn xalaat dul dindi ak matériel yooyu di ko yóbbu yaakaar naa ne ah nañ ma jégal si kàddu gi mais am na jëf joo xam ne daal ku koy jëf jëfu mala pour man sax moom ngay jëf parce que am na loon nit ku correct nit njaay nit kuy xalaat rek nite yaakaar na warul di xalaat yéen bi di ko def bu dee côté ci kaw la saisi loolu man am na benn reportage boo xam ne dem naa ba foofu gis saisi nañ ko dindee yooyu nag yaakaar naa du yëfu nit daal pour man nañu moytu yooyu sàmm li ñu moom maanaam li du édifice public lañ koy wax loolu suñu yëf la nañ ko sàmm waaw du pour Aïssatou du pour Babacar du pour Talla Ndiaye wala Birame mais c'est pour toutes les sénégalais nañ ci veille di ci bàyyi xel ki ko tabax tey Macky Sall bu soobee yàlla mandaam dana jeexal ci réew mi dem bàyyi fi li mu fi tabaxoon ministre Matar ba noonu Abdoulaye am na mu fi defoon bàyyi na ko fi yàlla na gudd fan te wér abdu Diouf noonu yàlla na gudd fan te ba ca Senghor wuyu ju na boromam li ñu fiy tabax pour sénégalais yi mais du pour ñoom kon ñun ñu ñu koy tabaxal nag defe naa suñu rôle mooy ñu sàmm loolu ba nga xam ne daal dinañ ko mën a jëriñoo ni ñu ko war a jëriñ parce que nag ay sénégalais lañ te Dakar naa suñu civilisation ñëpp a koy wax kon nañ ko jéem a jëfe daal waaw waaw Babacar li nga xam am na solo ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni tey ñooy suivre Leewtoo TV di suivre seen revue de l'arène jox euh, di daje suba mais balaa boobu dañuy nuyu ki nga xam ne mooy Mame Talla Chéri Lébou suñu Baye Fall bi nekk ci caméra bi di nuyu équipe Leewtoo TV bi yëpp ñoom yàgg Biram Ndey Kumba Ousmane ngi si montage bi ak képp ko xam ne rek yaa ngi béggoon Leewtoo TV di safoo Leewtoo TV Babacar Talla Chéri Lébou ndeysaan Lébou borom yu neex yi maa ngi koy bégg ah di nuyu xale yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak gudd fan ñaan ba way jur yi fekkee seen njëriñ di ñaanal di ñëpp di nuyu ñi ñuy suivre tamit parce que comme li may wax rek ñi ñuy suivre fu ñu mën a ne ñu ngi leen di nuyu Khady Rose Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waaw Khady Rose Sarr mu ngi <laughs> waaw nuyoo bi yegg si na depuis Osbourg ca Allemagne tuuti yaay Sarr Espagne xam nga Mame Modou Guèye taalibi sëñ Baye si Abdou ak ñoom Khadim Ndiaye Ousmane Diop Mamadou Kaolack Mamadou waaw Kaolack Diallo depuis Lisbonne waa Portugal xam nga Ousmane Diop gaa yëpp Ndongo Fall Baye Sall Dieng depuis Paris ma am a ngi moom bokkoon benn lal bu ñuy tëdd ma koy nuyu bu baax a baax di ñuy suivre fu ñu mën a nekk ki nga xam ne nii mooy benn sama dem Mbacke Kebe Italie sama gars yëpp maa leen di bëggee di leen ziar waa Gambia du ma leen fàtte mais tamit di beral mention spéciale ma leen fàtte ndax bii man la ñu seen groupe WhatsApp bi ñoo jékkoon fa waxtaan ñoom grand laay jib seen Pape Pablo Cédric jiga ñoom ñëpp nuyu naa leen di leen bàllu ak den wax ne koor gi yàlla na ko yàlla nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais Aïssatou daal di wax ne que Sénégal yéen fi yàlla def jàmm Seydina depuis Guédiawaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ñaanal jàmm. di leen jox rendez-vous suba incha allah.